auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bañu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen ziyaara di leen baalu ak di leen baal ak di ñaant yàlla mboole ñu jéggal xam naa niñ ko baaxoo di defee rek di jiital nuyoo bi tamit euh, kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñaaneel leen yàlla yal na yàlla aar leen sàmm leen waaye yàlla def ci suñu réew mi jàmm du ñu fàtte tamit ñi nga xamante ni ñooy waaye jiitu yi yal na leen yàlla yërëm at leen ci yërmandeem ñaanal ñi ci hôpitaux yi ak ñi ci prison yi yàlla leeral seen mbir ba ñu génn dellu ci seen njaboot ndax kat euh, la leen fa bàyyi du seen yaafuus waaye ñu liñ fi bàyyi du seen ña suñu njàmbaar kon lu ñu wax mukk te fàttalikuñ leen wala ñu ñaanal leen yàlla yàlla yërëm ñi jiitu ji te aar ñi nga xamante ni ñoo feebar wala ñu nekk ci prison yi yal na leen yàlla defal jàmm waaye di yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci koñ bi def ko fépp fu waay nekk rek yàlla na yàlla defal jàmm xam naa niñ ko baaxoo oh, ni leen ko waxee woon ci bande annonce ba rek ci xibaaru daara te nag dañu ñëw fii ci daara ju mag daara joo xamante ni ñëpp xam nañ leen ci wàllu mokkalum arxuraan daara joo xamante ni ñëpp xam nañ seenu njàmbaar nekk fii ci Cité Lamy ki nga xamante ni kii mooy borom daara ji di oustaz Mouhamed jiite jiite daara ji comme niñ ko leen ko waxee woon nag bande annonce bi tey jii ci ndorteel moom lañ fas yéenee ànd ak yéen ànd ko fii ci daara ji waaye bala ñuy tàmbali euh, waxtaan bi ak ki nga xamante ni mooy borom daara ji dañuy ubbee barkeeloo li nga xamante ni moom mooy alxuraanul karim ngir ubbee ko jotaay bi ngir ñaan yàlla mu barkeel kon lu ñu def lu dul bàyyi ak sunu ndongo daara bi mu jàngañu alquranul karim ñu soog a tàmbali waxtaan bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون قرآنا يستمعون القرآن فلما قدروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا الكتابا أنزل من بعد موسى أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم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 a ah, mu mel ni xol sedd na dëgg yàlla ndax ah, ndongal yi jàngal nañu alxuraanul karim jàngin woo xamante ni jàng wu leer la waaye jàngin wu sell la yaakaar naa ni képp koo xamante ni kii yaa ngi fii ci Salamine te sa doom sa doom nekk fii ci daara ji nekk fi ndongo di jàng ni xale bi jànge alxuraanul karim ci jàngin wu sell te leer noonu la ko sa doom ji defee loolu yaakaar naa ne mbokk yi fi dëkk mën nañ koo seede looloo tax tamit ci njàmbaar loolu ñu def sunu ndorteelu émission fas yéene ñëw ànd ko nga xamante ni moom mooy borom daara ji comme ni ma koy waxoon nag oustaz nag dox ku xa doo ku ñuy koo xam ne dañ koy présenté fii ci si Lamy ndax yàlla ñëpp xam nañ ko moom yemul rek li muy dox ci wàllu diine yemul rek ci daara ji waaye mi ngi ci euh, jigéen ñi di leen jàngal seen wàllu diine mi ngi si jigéen ñi di leen xamal tamit seen wàllu àdduna mi ngi si jigéen ñi di di leen jàngal tamit même ci góor ñi di leen jàngal naka la nit di def ngir àddunaam jag waaye ngir àllaaxiraam jag kon kooku du ku ñu présenté ci loolu rek la ñuy jox ki nga xamante ni kii rek moom mooy oustaz Mohamed Jiite mu nuyoo ñu soog a dugg ci waxtaan wi oustaz bismillah alhamdulilahi rabbil alamin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له هو الذي خلق من الماء بصرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وعلى آله طيبين الطاهرين وصحابة الأجمعين ومن اختفى بآثارهم إلى يوم الدين mbokk julli ginnaaw bañ sant yàlla subhanahu wa taala julli sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam mooy soppee képp ku baax di julli ci moom ak waa këram ak i saxaabaam waaye ak mboolem ku topp seen i jeexital ba ilaa yawmina haza tabaarakallahu ñu ngi nuyu sunu jigéen sunu xarit sunu soppe tabaarakallahu mooy aja nday mbuur fall di ko nuyu di ko ziyaara fii ci euh, site bu am solo bii nga xam ne mooy yàlla acte Thiès macha allah muy euh, site boo xam ne site bu am solo la boo xam ne tabaarakallahu nit ñi koy seetaan ndax ngir lan ngir médiation yu am yi nga xam mi ngi def ñu ñaan leen yàlla subhanahu wa taala yàlla yàlla yokku leen fu ñu dem ba am seen bërëb bu yaato yaato ba mboolem foo ne ci àdduna rek mën a jàkkalom ko seetaan tabaarakallah kontaan nañ ci ñëw bi nga xam ne moom ngeen ñëw fii seet ñu muy daara Mamor jiite nga xam ne ni ko suñu jigéen waxee mu Adja Nday tabaarakallahu ñu nekk fii ak xale yi di fi liifantu ci alquranu karim macha allah te yéen nekk seen premier numéro ngeen ñëw fi ci daara ji mu nekk loo xam ne ginnaaw bu ñu kontaanee waaye dañ ci gën a kontaanat ci njëkk bi ngeen fii ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala barke bi nga xam ni moo nekk seen maam ji nga xam ni moom lañ tuddee daara ji mooy Mamour jiite yàlla yàlla subhanahu wa taala dëgg ci yëkkati seen i mbir ndax moom ay mbiram ku yëkkati ko la ndax borom xam-xam la woon ku ragal yàlla la woon waaye koo xam ne tabarakallahu yàlla may na ko ci wàllu xam-xam boo xam ne dama jël jël naa ay nit sax waaye jinne sax amoon na ko kon nag barke boobu yëpp yàlla na yàlla def ko ci seen site bi bi jaay seen am salam en tout cas kontaan nañu amin jërëjëf euh, yaa oustaz yaakaar naa ne yi yi nga nuyoo am na solo te it rafet na lool macha allah am naa dañ lay ñaanal yàlla rek yow ni nga ñu ko ñaanalee yàlla nañu bokk yiw wi waaye oustaz xam naa bala ñuy duggale bala ñuy guddal dañuy dugg si waxtaan bi a ah, ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy daara ndax umpale woon ni émission bi xibaaru daara la te dañu wax ne fépp foo xamante nii rek daaraa nga fa wala fépp foo xamante ni bu ñu fa demee dinañ indil askan wi loo xamante ni njëriñ la ba ñu delloo seen xel ci wàllu daara dinañ ko def loolu moo waral ñu ñëw ci ñu ñëw ak yow ci waxtaan boobu léegi oustaz bu ñuy laaj bu ñu bëggee xam njariñal daara lan mooy njariñal daara lan nga ñuy wax ci li njariñal daara mhm. alhamdulilahi rabbil alamin ci soal bu am solo wala boog question bu am solo boobu nga xam ne tey da nga njariñu daara mhm. nga xam ne daara ay njariñam tabaarakallaahu yaakaar naan du loo xam ne lu nëbb la doon waaye lu feeñ la doon ñëpp dañ leen seen bët ndax ku ne xam na ni yàlla subhaanahu wa taala kàddoo mooy alquranul karim nga xam ne mboolem li mu bëgg moom yàlla subhaanahu wa taala tënk ko ci biir téere bi muy alquranul karim waaye yàlla wàcce ko ci ki gën ci nit ñi mooy seydina Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam nekk téere ba gën ci téere yi waaye xeetu yéen sallallahu alayhi nekk xeet yi gën ci xeet kon ki gën te mooy yàlla subhanahu wa taala moo wax waxam wàcc ko ki gën ci nit ñi muy Seydina moom salaay salaam wàcc ko ci xeet bi gën ci xeet muy Seydina moom sa muy umar Seydina moom sallallahu alayhi mu nekk loo xam ne tabarakallahu ay njariñam bëri na lool waaye keroog bi nga xam ne ay bi njëkk wàcc alquran karim muy iqra keroog ba léegi njariñu alquran mi ngi dotti ndax yaakaar naa képp koo xam ne ku baax koo xam ne ñu ngi koy tudd fii ci réew mi ak doon sunu mag yu baax ñi nga xam ne ñu ngi leen tiitaroo leen rek moo tax ñu leen tiitaroo mooy alquranu karim ndax am na ay nit ñu ñu nekkaloon fii ci réew mi ñoon dund ci wàllu àdduna waaye tey ba léegi tey xam xamuñu sax seen bàmmeel fo mu nekk waaye tey sunu mag ñi tey ba sunu jamono jii tey am na sax ñoo xam ne ba léegi seen bàmmeel mi ngi génn dépense loolu lan moo ko waral mooy alquran bi nga xam ne moom lañ doon dund nga xam ne benn société tey mënut a baax lu dul dañoo dund alquranu karim nga xam ne tabaaraka la nga benn xale bu tuuti dara nekkul ci dënd bi ñu jàngoo alxuraan ba mokkal alquran alxuraan boobu nekk ci dënd bi xale boobu su màggee mooy ñi nga xam ne ñooy jariñ seen réew waaye mooy ñi nga xam ne dañu dañuy jariñ seen diine nga xam ne yàlla subhanahu wa taala li mu bëgg lépp da koo tënk ci téere muy alquranu karim nga xam ne mag ñu baax ñi tabaaraka laaw ci la ñu jàppoon yàlla subhanahu wa taala wàcc sidnam sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne alquran boobu mbooleem xeetu xam-xam yi alquran da koo borom xam ne soo dem dañ dañuy wax li ñu tuddee al uluma kawniya suba alquran am na ko li nga xam dañ koo tuddee al uluma taarixiya na ko li nga xam ne dañ ko wa qanuniya li nga xam ne moom tuddee al uluma xarbiya wa siyaasiya alquran daf loolu la mooy bu dee uluma kawniya mooy alxuraan jàngal nañu kaw asamaan ak la ca xew ak la fa nekk lépp alxuraan wax nañ ko te loolu li ci gën a leer mooy yëpp saa saan kere bi mu rañaanee xam ngeen ni rañaan googu yàgg na waaye alxuraan wax daan subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram ila al masjid aqsa allazi baat na xaw noonu li nuru yawmi ayaatinahu samiun basir kon la xew ci asamaan sa kër saa saan ba mu demee la ca xew lépp alxuraan wax na wax nañ ko kon mboolem ulumi kawniya alxuraan daf koo peeg waaye lu tuddee mboolem ulumi taarixiya alxuraan daf koo peeg ndax tey alxuraan ngay jàng ñu jàngal la xeexoo yonent yàlla Muusa doonte passé woon na alxuraan ngay jàng mu jàngal yonent Ibrahima te passé na alxuraan ngay jàng mu jàngal yàlla Yuusuf ak Yunus te passé na kon alxuraan li ñu tuddee ulumi taarixiya alxuraan daf koo peeg waaye tabaarakallaahu li nga xam ne dañ koo tuddee al ulum tashriiya wa qaanuuniya alxuraan daf koo peeg mooy lan ni ñuy jaamoo yàlla ni ñu sellali yàlla ni ñu amee tawxiid lépp alxuraan daf ñu ko jàngal waaye tabaarakallaahu luwaay yi nga xam ne ma macha allah moom moom la ñu war a dund ci société bi alxuraan daf ñu koo jàngal tabaarakallaahu kon alxuraan njëriñam kenn xamul mu toll waaye yu al uluma xarbiya wa siyaasiya alxuraan daf koo peeg te mooy ni ñuy xaree plan de guerre yooyu alxuraan daf ko jàngale waaye ni ñuy politiquer ba réew mi nga mën ko teg yoon alxuraan daf ñu ko jàngal kon téere boobu kon ay njariñam léppam njariñ la a ah, alxuraan léppam njariñ la moo tax ku ko jàng rek xale bu xale bi nga xam ne moom lañ ci yar su màggee rek du ba ko mukk koo xam ne maanaam yaruñu ko te damay wax ne daara yi fu mu bëree rek kaso yi tabaarakallaahu war naa néew ndax parce que daara ci ñu jàngale koo xam ne bu génnee mooy yor réew président yi normalement ci daara lañu la ñu waroon a génne ndax ku jiite ay mbooloo war ngaa xam sa charia imaam yi ci daara yi la ñuy génne kon daara léppam ay njariñ la alquran lépp ay njariñ la yaa nday muur jërëjëf euh, oustaz euh, kon su ma déggee li nga wax rek kon mën nañu tënk ne lépp a ngi ci alquranul karim lépp kon mi ngi ci alquranul karim ba ci li nga xamante nii ñu ngi koy dégg ci ay jikko yu rafet ci ay nu ñuy doxalee nu ñuy yorim réew ci ay nag wàllu politique bi lépp rek kon mi ngi ci alquraanu karim ci bu ñu ko seetlalee wala bu ñu ko defee bu ñu ko jàngee ba xam ko wala bu ñu ko doxee ni nga xamante ne noonu la ko alquraan euh, santaane waaye oustaz danga wax lu am solo ci wàllu xale bi nga xamante ni moom mooy jàng alxuraan ma bëggoon a xam ban njariñ wala lan moo tax xale bu juddoo toll si njàng ñu war koo dalal ngir mu jàng alxuraanu karim. jërëjëf Adja xam nga yàlla subhaanahu wa taala dafa wax daal ni wa maa umiru ila li yabudullaha muxlisina lahu dina hunafaa yàlla waxaat wa maa xalaqtul jinna wal insa ila li yabuduuni ay ma njëkk a jàng yàlla ni leen dong laa leen digal yi nit muy ngeen may jaamu dese leen jaamu wax waaye yàlla bi mu waxee loolu dafa wax dafa wax daan ni nit ak jinne leen dong moo tax ma bind leen mooy pour ñu jaamu ma te nag yàlla wax daan ni ci xadiis xusi taarifuuni qabla an taabuduuni ndax fa in lam taarifuuni fa kayfa taabuduuni jaamu leen ma de waaye nag bala ngeen may jaamu ngeen ma xam yàlla na su fekkee xamu leen ma nag du ngeen may jaamu kon yàlla moo digle jaamu ñu war koo jaamu te yàlla wax na ni su ngeen ma xamul mu leen maa jaamu kon pour ñu mën a xam yàlla faaw ñu dem dem ci téere bi moo tax xale bi bu nekkee xale bu ndaw balaa ñuy def dara ci moom dënd bi alquran la ciy def te alquran boobu soxna day alquran boobu xale bi tey fi mu doon tey baatu laa ilaaha illallaah maanaam la ñuy sas ci moom xale bi bu juddoo même toqatal biñ koy bindal sax faatiha la pour mu commencé di toppatal alquranu karim mm-hmm. bu demee ba commencé commencé jàng su ne su dee amee juróom-ñaari at wala sax lu ko gën a néew baasin mimara la ñuy a sol ci moom xale bi mm-hmm. nga xam ne bu ñu xasee def loolu ci moom xale bi am na lu ñu commencé di installé ci moom mm-hmm. su ko dee alxuraan boobu moom su jiitoo ci moom xale bi allah kulli xaal su màggee daal di baax parce que li gën moo nekk ci dënnam moo tax soo bëggee. am ëllëg ay mag ñu baax faaw nga jël xale gi yeneen ci karim moo tax xale bi su xasee nekk xale li ñuy dëgg def ci moom mooy muy sol ci moom alquranu karim muy màgg ci moom màgg ci moom nga xam ne su xasee màgg même su génnoon sax seytaane ak yàqkat yeeg ñi nga xam tabaaraka dañuy ñi du na ci moom moo tax ñu bëgg xale su xasee màgg lañuy su xasee su xasee judd la karim moo tax waa yi tabaraka di ci sonn bu baax a baax te loolu yàlla subhanahu wa taala moo ñu digal te loolu yéen salaa salaam moo ñu ko digal moo ne seen xale yi bu bu ñu demee ba seen xel yi mat rek jàngaleen alquranu karim ndax loolu mooy li leen jëriñ ci àdduna mooy li leen jëriñ ci àllaaxira ndax ku ne xam ne àdduna bi ñu dund nii ndax ginnaaw dund bi dafa am beneen dund te dund booba lan la la ma mën a jëriñ fii nga koy liggéey ci biir àdduna te soo bëggee jaamu yàlla te mu xamoo alquran doo mën a jaamu yàlla moo tax jullit dafa war a dafa war a mën alquranu karim moo tax koo képp koo xam ne sa waajur jàng na alxuraan karim xam ne am nga sens bu rëy rëy rëy rëy soxna Ndeye Mbour uh, wax nga ci sa biir wax yàlla subhanahu wa moom moo wax ne uh, bala ngeen ma jaamu na ngeen ma xam kon munoo jaamu yàlla jaamu gu ànd ak cellte te xamoo nga xamante ni kii moom ngay moom mooy uh, subhanahu wa taala koy jaamoo kon loolu tamit am solo ne xale bi bu juddoo li ñuy njëkk a tifli ci nopp bi alxuraanu karim la alxuraanu karim la ñuy la ñuy la ñuy mooy moom la ñuy jàng kon yaakaar naa ne li nga wax lépp ci njariñal daara am na solo am solo goo xamante ni kii dina tax ba sama mbokk yi nga xamante ni ñun mbokki parents d'élèves yi wala ñun ñi nga xamante ni ñooy wayjuru xale yi suñu doom bu juddoo bala bu toll ci waxtu jàng bala ñuy xalaata def ci moom leneen ñu xal jiital ci moom li nga xamante ne mooy alxuraanu karim ndaxte loolu mooy li nga xamante ne mooy jiitu ci dënn bi te it wax nga tamit ne loolu nekk na loo xamante nii lu ko lu koy yar la waaye tamit lu dul fay la te loolu yaa participer ci moom moom la ñuy làmboo kon loolu nekk na lu am solo dafa am kilifa gu mag guy wax ne xale boo ko ba baa bul ko bàyyiloo dara nee na boo ko newul siin bul séentu bu ko séentoo dara waaye boo ko newul miim nee na bu ko miimal dara kon ñetti waat yooyu yaakaar naa ne oustaz jar na nga jël sa doom yóbbu ko alxuraanul karim ndax ñu xamal ko ñu jàngal ko ñu teg ko ci yoon ba mu xam fu muy tegu ëllëg. tooguma la sax balaa nga ñëw ci benn question bi. Mm-hmm. pour li nga wax ne pour leeral. Mm-hmm. ci njëriñu alquran. Mm-hmm. nga xam ne alquran day jëriñ nit ki suy dund. waaye day jëriñ nit ki tamit même su génnee àdduna. te xataa waajur bi nga xam ne sax jël na doomam dugg ci biir alquran mu koy jàng même su fekkee dafa génn àdduna sax alquran daf koy jëriñ foofu ndax salaa salaam moo wax daan ne tabaarakallaahu idaa maata min aadama inqataa ila min salaasin aw walidin saaliha yad'u lahu saa nit ki su génnee àdduna ay jëfam yëpp day daal dog yëpp ay dog ba mu des ñett ñett rek mooy mbir yi nga xam ni day nekk barzaq tiyaaba yi di ko fekk foofu ñu ne ko yaa yooyu yan la mu ne ilmun yuntafaqu bihi xam-xam boo xam ni da koo jàngale woon ñu cay jëriñu loolu lu ca lu ca waay jëriñu rek ëllëg lay fekk foofu noonu ñu ne ak yan yaa mu ne sarax boo xam ne sarax buy daw la benn da nga gas wala ngoo bi wala nga jëmbat garab wala xeet yu mel noonu wala nga jël basaan indi ko jàkka ji wala feneen loo xam daal ba koy def yàlla moo taxoon te ginnaaw ba nga génnee àdduna loola ba léegi ñu ci jariñu loolu dalee fekk fële sa barzaq ñun yaa rasul mu ni nga génn àdduna bàyyi xale bu baax doom ju baax joo xam ne saa yu jëlee di la ñaanal kooku moom dalay jariñ fële ci barzaq mm-hmm. te ku ne xam ne ni alquran boobu lu ko gën a baax lu ko ëpp njëriñ amul kon soo jàngalee sa doom alquran même soo génnee na sax alquran bu mën a jàng rek tiyaaba da lay fekk fefe fecca bar kon loolu njariñ la waaye su moom seet aajama dafa ñëw jàngal daane inna alqurana huwa almizaanu tahwil maa xalata min aswaa wal qasada yaa man yu jinaan qul yaskunaha faqad batat min tahtu tarami daa wax daane daa wax daane alquran moom mooy mooy balance bi gis nga soo bëggee xam ne sopp na yéen sa loolu sopp yéen sa la xoolal na ne fu mu metti alquran rek nit saa yu ñu ne saa yu dégg nit ku bëgg alquran la jàpp ko sopp sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa la waaye soo déggee ñu ne diw daal ku bañ alquran la jàpp ne ku bañ yonent sallallahu alayhi la kon mu mu ni kon alquran kon moom mooy place bi nga xam ne moom la ñu fan la toll ci yonent sallallahu alayhi wa sallam waaye nag mooy caab bi nga xam ne ëllëg moom nga dugg biir àjjana xam nga day sa sa sa néeg mm-hmm. balaa boo ko tëjee balaa nga fiy dugg da ngay yor caab ubbi waaye ñu ne kon alquran muy caab bi nga xam ne ëllëg sooy dugg ajana moom mooy ubbi pour dugg biir ajana mm-hmm. kon alquran kon mm-hmm. li ci nekk ay njariñ kenn xamul lan la kon loolu dama ko doon dolli rek ci li li wax wax la ni uh-huh. tabaarakallah alquran ay njariñam mm-hmm. day am ci adduna bi waaye même su génnee tamit adduna tamit alquran tamit dafay continuer dina jariñ foofu noonu. jërëjëf jërëjëf oustaz euh, mu mel ni am na solo lool xanaa di leen fàttali nag ne ba tey yéen seen émission xibaaru daara yi ñu koy defee fii ci Cité Lamy ci daara yi Mamour jiite ki nga xamante ne moom mooy borom daara ji Mohamed Djidé ñu fekkoog moom jàkkaarloo moom fas yéenee waxtaan ak moom ci njariñal daara kon dégg nañ li nga xamante ni oustaz indi na ko ci ban njariñ la daara am waaye tamit ban njariñ la jël sa doom yóbbu ko ci daara am tamit waaye oustaz dañu gis ne jamono yi ñu gis ay yàqu-yàqu yàqu-yàqu ci wàllu jikko yàqu-yàqu ci wàllu uh, comportement yàqu yàqu-yàqu ci wàllu uh, waxin ci wàllu doxin yooyu may laaj ndax uh, ban ki nga xamante ni ki jàng na alxuraan ban jeexital lay alxuraan bi di am ci moom ndax jikko yi nga xamante ni ñaaw ñaawteef la jikko yàqu-yàqu yi ndax loolu dañ ko séentoo ci nga xamante ni kii jaar na daara waaye jàng na li nga xamante ni moom mooy alquraan karim ba mokkal ko xam nga yàlla subhanahu wa taala lañu wàcc alquran daani wa man arada wa nahshuru yawmal qiyamati ahma yàlla nee na dama leen wàcce sama téere muy alquranu karim waaye nag mu ne nag képp koo xam sama téere bii da nga koo wan ko ginnaaw nee na da ngay dund dund ko wax dund ko métti la dund ko am ay jafe-jafe la moo wax ne adduna bi boo xoolee jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk adduna bi boo xoolee ci li ko waral mooy dummuy bu ñu dumuy alquranu karim suñ dee atteewu dañu atteewu ci alquranu karim soo ndey xoolal li jamono tey ñun ñëpp tey képp koo xam ne tey yaa ngi takk sëy nga nekk jurit nekk doomu jurit la nga njëkk ana imam woo mbokk yëpp woo xarit yëpp woo am na jàmm yëpp ñu ñëw yëgale ko ñu indi ko ca jàkka ja ñu teg ko ci lan ci sariya muhammadiya xutba julli jënd salaay salam waxante ay baat waaye seente lu rafet waaye ginnaaw bi ñu defee loolu nday sono nday suñu demoon tey ba yàlla tere ba sëy bi am ñoon ñoon ba ñaar ñi nga xam ne ñooy ñooy sëy mënatuñoo nekk ba nga xam ne ñoom kenn ku ne jël nga décision yi kat sëy bi dañ ko war a teqale wala su ko waree teex su ko bëggee teex la nu ñu war a def dañoo war a delluwaat ci jàkka ja yi nga xam ne fa lañ ko takkal te imam ñu ne kat sëy bi kat mënut a dem nañ ko nañ ko diri ci charia waaye loolu du am na la ñuy def dañuy dem tribunal ci loi yoo xam ni xëy na ñoom seen loi yi ñu attee am na côté yu côté yoo xam ne dafa wuuteeg lislaam ñu attee ko ca kon ñun est-ce que ñun kon ñun ñun war nañoo laaj suñu bopp na ay jur wala duñ ay jur te yàlla waxoon na ne wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaa'ika mu waxaat wa man lam wa man lam yaxkum bi ma anzallaahu fa laykumul kaafiruun mu wax dane wa bi ma anzallaahu fa laykumul zaalimuun yàlla utilisé ñetti yoo xam ne yu garaaw la daa wax daal képp koo xam ni ak diwul ci li nga xam ne moom laa wàcce muy alquran bii kooku tooñkat la xool tooñkat la mu garaawee yàlla wax nii kooku yéefar la mm. xoolal yéefar moo dal képp koo xam ne yaa ngi atto taatu sama téere bi yow faase nga kàccoor la kon ñetti at yëpp yàlla subhanahu wa taala jël na ko joxe ki nga xam ne dafa dumay alquranu karim kon ñun dul ñun alxuraan lañ la ñoo war a atte woo kon ni ko laajee kon jafe-jafe yi tey yi nga xam ne tey moom lañu nemmeeku ci àdduna man day li ma gëm day mooy li ko war mooy dumay bi ñu dumay alquran rek moo ko waral alhamdulilah gars yi ñu ci góorgóor baax waaye dafa des ndax alquran ku ne xam na ni jullit ni nañu war a pratiquer alquran loolu dafa des société bi ndax jigéen ñi tey lu leen neex lañuy sol jigéen ñi tey lu leen neex la ñuy waxe fu leen neex la ñuy dugg te lislaam dafa am lu mu jàngale doo jigéen jullit nu mu war a mel jigéen jullit nan la war a doxee jigéen jullit nan la war a waxee jigéen jullit nu mu war a mel yooyu yëpp alxuraan alxuraan daf ñu ko jàngal waaye tey malheureusement tey ñun dañoo topp ay ñoo xam ne tey ay jikko yoo xam ne ay culture yoo xam ne bokkul ñu suñu culture mm-hmm. tey moo tax tey ñu am ay jafe-jafe yu ñu am roy ñoo xam ne tey bokkuñu ñu ñoo xam ne gëmuñu yàlla moo tax tey jafe-jafe ñu am lépp tey koo dégg tey mi ngi wax ni kat jikko yi dañoo yàqu tey ndaw ñi tey xoolal tey ndaw ñi tey lu leen neex def sànni ay xeer toj ay biisu jàmbur toj ay alalu jàmbur yàq alalu jàmbur def lu leen neex te kay mënu ci dara lu waral loolu mooy mooy jikko yu ñaaw kon su ñu bëggee jikko yi de delluwaat rek nañu xo nañu nañu lépp alquranu karim sa sam daa wax daani ni ko su demee ba am daraja ba nga xam ne kenn ñi ma ko ñëmetu ko wax dëgg na toogaat jël kaamilam di seetaan baat alquran nekk alquran wax wax ko pàqu maamam kon noonu la ñu waree kon suñu bëggee kon suñu tegaat ci yoon mm-hmm. nañu jàng alquran jàng ko jàngoo suñuy njaboot mm-hmm. te suñu ko jàngalee ba pare nañ leen a jéem a wax lan moo nekk ci alquran lan la yàlla wax baali ñu firi leen ko bañ bañoo xam alquran bi su ko defee ñu dund ko mm-hmm. mën a nekk ay alquran yoo xam dafay dox suñ ko defee rek dañuy am jàmm fii ci àdduna te suñu génnee te àdduna tamit dañuy am jàmm loolu yàlla digle waaye suñ ko dumooyee rek dañuy dund dund gu métti ndax yàlla wax ne wa man aarat an zikri fay na la may sat ndànka képp koo xam du may sama alxuraan di nga dund dund gu la ci gën a la ci gën a métti mooy lan wa nasur yawmal qiyaamati sooy dekki da ngay gumba waaw booy da ngay gumba su defee nag nga naan yàlla kat man yàlla lu ma dekki te gumba te man ko ma nekk ci àdduna ajran di xool tey ma dekki gumba yaa di ko waaw parce que da ngaa du may sama alxuraan samay aaya faale toptoowuma tey tey lii laa la fay tey kon su ñu bëggee société bi baax ñu am développement nañu xool alquran ko ñu càmbar ko nga xam ne yàlla subhanahu wa taala li lépp dëgg ci alquran nit ñi doxalee àdduna lépp yàlla tëgg na ci alquran allah xel bu ñu amee bëgg bëggee am ngërëm yàlla lépp yàlla tëgg na ci alquran suñu bëggee dund dund dund suñu biir am am ak jàmm alquran wax wax nañ ko waaw lépp alquran jàng nañ ko nit ñi même ki nga xam ne sax dafa bëgg a neex sax na nga war a séy pour mu neex sax alquran jàngal nañu ko kon alxuraan yàlla nee na maa fartaa fii kitaab min shay sama téere bàyyi ma ca dara kon nañu gën a góorgóorluwaat indi alxuraanu karim tegaa ko sunu kanam mu nekk làpp bi nga xam ne moom la ñuy niitoo ndax yàlla wax na ko de qad jaakum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiin waaw yahdi yahdi bihi llaahu man ittaba'a man ittaba'a subula salaam wa yahdihim wa yahdi ila siraatin mustaqim yàlla nee na kat yéen kat indi naa leen téere ak leer leer gu jub leer gu leer nañ indi naa leen ko muy lan muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak alquranu karim nga xam ne ku ca topp rek di nga tegu siraatal mustaqima kon alquran bu ñu bëggee société bu baax bu ñu bëggee tabaarakallah suñu am jàmm mu jël téere yàlla mi alquran ñu tegal suñu kanam ndax ay njariñ kese la tabaarakallahu ah lii de moom yaakaar naa ne macha allah am na solo ndaxte li nga wax rek suñu bëggee réew mi jag suñu bëggee kër yi jag suñu jë bëggee réew mi dal suñu bëggee jàmm ji ñuy ñaan saa su nekk di am ci réew mi kon fokk ñu delluwaat ci alxuraan fokk ñu dellu te kat dañ ne sàkku xam-xam jar na doon tele da dem ba Chine sax nga dem sàkku ji ko foofu te ñu gis ne nag fi mu ne nii daara yi macha allah daara yi bari na quartier boo dem wala koñ boo dem am na daara comme kon nag doon tele jar na dem ba Chine nga dem jàngi ko te ñu yàlla yombalal na ko ba mu ngi say suuf tàng kon yaakaar naa ne war nañoo daw jàngi waaye oustaz xam naa fi ñuy jeexale rek moom mooy dañ lay laaj question bu mujj bi te mooy ndax jàng di daara dina wees waaw yéen sax ko de minal mahdi ilal lahdi waxoon na jàng minal mahdi ilal lahdi saa sax day wax ne jàng di ñu teg la ci berceau fa nga commencé mu ni jàng fa mooy soo demee ba ñu teg bi yàlla na yeex nee na fa lay jàng jeexee mm-hmm. xanaa xamul soxna ndey mboolem saxaaba yi wala saxaaba yi am na ñoo xam bi ñuy jàng mais ko alxuraan am na ñaan parce que avant yéen ndax yéen bi muy ñëw da leen fekkoon ci kéefar xamuñu alxuraan xamuñu diine ndaw yow dugg ci biir lislaam ay mag dugg ci am na mag ñoo xam ne bi ñu dugg ci lislaam ëpp nañu lépp ñeent fukki at waaye jàng na ci yéen sala salaam ba comprendre diine ba karim ba mën sharia ba nekk ay ay aalim nekk ay mufti te biñ koy jàng ëpp nañu 40 ans kon loolu day firndeel ni kon jàng du wees pas-pas rek moom moo am solo ay yitte mm-hmm. ku def yitte rek yàlla subhanahu wa taala am na ma defal waaye nag su fekkee ta tabaarakallaahu yow comme ni nga ko waxee leget ga moo la gën a yitteel natt ba moo la gën a yitteel ndaw ràbbin ba moo la gën a yitteel mm-hmm. kon doo mën a xam sa diine parce que loolu nga jël loolu nga jël mu nekk sa sa yitte waaye nag su fekkee ne kat yow kay tabaarakallaahu da ngaa da ne man mi kat bëgg naa xam sama diine am pas wallahi de yàlla dina am lu mu la xamal ci alquranu karim kon bu ñu découragé bu ñu wax ne man mi kat mënutuma mën alquran bu ñu wax ne man mi kat samay at dem na bu ñu wax ne man mi kat léegi jur naa ay njaboot mënutuma jàngi bu ñu ko rus parce que jàng moom booy dem dañ lay bindal tiyaaba soo ñëw dañ lay bindal tiyaaba jamono dañ fa toog tamit di jàng tamit ñu ngi lay bindal ay tiyaaba kon jàng du wees loolu la sallallahu alayhi wa sallam jàngalee ajaan lay jërëjëf euh, oustaz ndax suñu déggee sa biir wax wala suñu gisee sax ñun suñu bët nañu may ndax gis nañ ne fii ne daara ji fii boo fi ñëwee di nga fi fekk ay soxna yu jàmbaar yoo xamante ni tooguñu rek ne xamuñu suñu diine duñ ko duñu jaamu yàlla waaye dañoo jóg dem sàkku ji li nga xamante nii moom euh, xam seen diine ñëw fii ci daara ji di ko fi jàng gis nañ tamit oustaz ci wàllu li nga wax ne jàng du wees gis nañ fi tamit ci koñ bi am kër goo xamante ni jigéen ñi dañ fay daje nga leen fay fekk di leen jàngal li nga xamante ni moom mooy seen diine kon loolu day firndeel nga wax ne jàng du wees te kenn toog rek tee loxo ne man xaw ma kon lu mu ñuy jaamoo yàlla wala xaw ma yàlla du ko jaamu te yàlla dafa ni boo ma xamul demal laajte ji ma wala mal jàngee ma ba xam ma ngir mën maa jaamu kon loolu tamit ñun ñoo ko gis ñun ñoo koy seede di dëggal li nga xamante ni moom nga wax kon mbokk yi ñoo ko gisandoo ne woon naa leen ki nga xamante ni ki moom mooy oustaz Mouhamed Djité kenn ken ko présenté fii ci Cité Lamy donte la sax ci Thiès laay wax kenn du ko fi présenté ndax gis nañu tamit fu nekk ma ngi fay dem di fa jox ay ay ay ay xibaaru diine di teg nit ñi tamit ci yoon ngir ñu gën a xam seen borom bi gën a xam tamit li nga xamante ne moom mooy alxuraanul karim comme nga xamante ni ma leen ko waxee woon rek tey ji ñu ngi woon fii ci Salamine di daara yi maam Mor jiite ngir ñëw fii waxtaan ak euh, oustaz ci li nga xamante ne mooy xibaaru daara kon yaakaar naa ne ñoo déggandoo li nga xamante ne oustaz wax na ko wax dëgg yàlla du def lu di ko jaajëfal di kontaan di am mbégte sunu genn wàll la sunu xarit la sunu càmmañ la waaye si sunu ustaas la dañ koy ñaanal yàlla taxawaayam yàlla na yokku yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi lool lool ba mën a gindi nit ñi ci wàllu yàlla gën a gindi nit ñi wàllu diine kon ustaas amuñu sa fay dañ lay ñaanal yàlla rek yàlla na la yàlla fay gën gi fay kontaan nañu lool wax dëgg yàlla ndax ndaxte émission bi biñ ko jàppee fa yéene ko fee doore mënoon ga ñu indil gàllankoor waaye defoo ko dang ñu ubbil yaatal ñu daral ñu wan ñu ne wax dëgg yàlla ni ñoo bokk lépp wan ñu ne li ñuy jóg tax taxa jog tamit muy ah, diine lislaam li ñu tax a jóg moom mooy li nga xamante ni mooy gën a xamaat daara yi nga fekk ñu si ànd ceeg ñu jàppale ñu kon amuñu si fay yàlla na la yàlla fay gën gi fay wax dëgg yàlla xam naa kon mbokk yi rek du ñu def lu dul comme que dañu ubbi woon arxuraanul karim ñu tëjewaat li nga xamante ni moom mooy arxuraanul karim ngir li nga xamante ni moom mooy émission bi leen jox rendez-vous ci beneen émission xibaaru daara wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmani rahim walladina yuqaatuna fillahi min baadi wastujiba lahu wastujiba lahu xujjatuhum daaxiratun inda rabbihim wa alayhim ghadabun wa alayhim ghadabun wa lahum azaabun shadiid الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء هو القوي العزيز من كان يريد قاس الآخرة نزد له في خاسه ومن كان يريد قرص الدنيا نوته منه وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم إن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم